asalaamaaleykum waa àdduna nag waa Sénégal man la sekk ndaanaan di ñëw seen émission dox daje fii ci Aïdar TV di leen ko may nag chaque semaine tey nag thème bi mooy lu waral sëy yi di tas lu baree baree baree baree bare sëy yi tas yi bari nañ divorce yi bari nañ ñi nañ cause bi ci jigéen ñi lañ ñii nañ cause bi ci góor ñi la man nag maa ngi njëkk a ñëw ci góor ñi ndax bo gur judu judd fi nga wara juddo juddoo mage. fi nga wara a ba sa bisu tak jabar jot bo tasantee ku bax dem wax ko say wajur ñu dox ko tabarkalla macha allah ci diggante bi ngay and ak ku jigen ki bu ko neub sa bok bo dee mécanicien waxal boo dawal katu saret waxal jaay katu bitik waxal ndax pas de sous-métier katu sax waxal ndax tabarkalla yàqal la sàkkul kuñ dul bëgg waaye dangay ngay seeti jigéen wax ko fonction boo xam ne ku jigéen ki day yàkkamtee dugg ci yow boo dee mécanicien ne ko ambassadeur la boo dee tôlier ne ko ci ministère laa nekk macha allah boo dee dawarkatu oto mbaa ngay chauffeur ne ko maa nga aéroport fa laay liggéeyee jigéen gi nga xam ne toppul mbëggeelam tokkul dara matérialiste top la nga tak and ak say ga ngeen sa ba doyal xalé jigen ni dañoo ki takku kay bu wex bobu de lol ñuy mur non seen bop aka ñu koo yàkkamti ñaan ñu may nga watat seto set bi jot ay morom and ak mom seto set seto set ba duggal ko fi mu war seto dugg moroomam yi xam nga lu waral gungé seto set bop di xol fan la jëm kase da déjà di jaral xaar ko ba 4 heures du matin bu ñuy conversation bi commencé manam waxtaan wi waaye yow qui kii ne moom ambassadeur la ambassadeur la nekk fii mooy seen ne ambassadeur le fee mu fee la dëkk waa kii moom kii moom est-ce que dëgg la nga ñëw toog yow mii seet bi buñ la muree ngay xiin xiinal naan waa kii lii la waxoon xanaa kay bu paree daf may utal appartement sa xel commencé naa ñux ñuxi commencé ngaa am problème. yaa ngeeg deux xel ku lay nuyu sax doo ko mën a fay ku la ni waa siet bi na nga def sax da ngay tiit ne ko waa sa waa fekk sa xel mee naaw li nga foogoon nekkul waaja nax na la commencé nga ko jëlal en en dugg na fen dugg na li tubaab naan mensonge ngeen war a jàkkaarloo lune de jot na dem ngeen lune de ba ñëw ca biir lune de bi nga naan ko waa yow ndekete yéen foofu ngeen dëkk foofu mooy seen kër yow li nga ma waxoon kon yow lan ngay liggéey nga gis fa commencé naa <laughs> damaa xam ne su ma la waxoon ne menuisier métallique laa doo ma sëyal looloo tax ma wax la loolu fi mu ne nag comme paa yi takk nañ ba yëpp pare na léegi nag menuisier métallique laa léegi maa ngi doon loolu rek la mais damaa xam ne bi ma la ko jëkkoon proposé doon nangu sëy bi xeex ba commencé na barki yàlla comme yow loolu nga billaay wallaay tàllaay yow danga may fase ñu naan waa lii lu mu doon ne bëreet ne kër kër ne këpp ndaw sa ñëwaat na ci biir kër ga toog na une semaine bëggul benn moromam fekk na fa gàddu na ay bagages dem na seen kër ñeenti fan juróomi fan ñu gis la seen kër ñu naan waaw waa ndey faatu moom daa sëy woon lu muy ut fii seen kër nga ñëw ne sa yaay yaay daal kii lim ma waxoon ndekete dara amu ci kii lim ma doon mayeeg lépp ndekete àdduna ak àllaaxiraam la ma jox kii yorul dara ndekete yoo menuisier metalik la yorul dara la yorul yaay mu ne la ah boo nekkee amee yaay ju matérialiste ne ko ba ko ba mu ñëw ba fekk ma fii man kenn du ma toroxal samay digg nawle sa yaay du la encouragé ne la demal toog de lu ma am ñu bokk ko lu ma am ñu àndandoo ko def ko mu muñal defal nii sa yaay du la ko wax le danaan la toogal fii ba mu ñëw fekk ma fi sa jëkkër wàcc ñëw sa yaay sa yaay ne ko ah moom de ba mu xëyee la gàddu ay valisam dem na ñu fekk la seen kër nga ne yaay ji ne la xam nga lu ma la yëgal nga may ko baat léegi ndekete yow doo ambassadeur ndekete yow nekkoo aéroport may ko baat léegi sëy ba tas na jeex na dee leen wax dëgg boo leen di takk jabar dee leen wax dëgg lii laa am lii laa mën tolloo koo yemal mbagg diiroo ko sag maas kii laa àttan naa jël kii mu sëyal ma ci jàmm ak salaam ñu am ci ay njaboot yu barkeel boo visé ñi nga xam ne dañoo bëgg ay million ki milliards amoo lu dul téeméeri ju nekk deux cent mille ak cent mille boo duggee ci ñoom buñ la bëggul da ngay diig moo ana la nga dajale woon ana la nga mariage pertoo ko moo ne boo ko demoon ci say biiri mbokk ñi nga tolloon mbagg takk fa ma nga sa kër di la sëyal jigéen ñi nag dañ lay nopp ñëw ne leen fonctionnaire plein la loo doon wër 4 gallon 4 v macha allah am naa ko mën naa ko yaa ngi nii liggéeyoo xëyoo gonto dama lay jox nga ñëw takk ma boo ma takkee ñu def mariage bu neex ma yor la sama kër dara manqué wu ma ko am naa kër am naa lépp ñëw nga takk nga ko sëy bi commencé na mais yow mu góor goo ko ñu takk doo nooy boo bëggee bouger mu ne la ah tu es chez de da ngaa fàtte xanaa a fàtte ne li ma la jor man maa la takk maa bëgg nga régler damaa bëgg nga toog xam ne instant bi maay dogal sama kër nga nekk da ngay mën a régler rek ñu ànd mënoo ko nga dem sa yoon waaye góor bu juddoo fu mu war a juddoo màggee ni mu war a màggee yàlla def ko mu ñàkk dong am dooleem nekk borom saasumaan bu naree xam ne day nekk sa kër googu nga koy trotter nag di ko utiliser mu ne la kon ñu bàyyi xanaa sëy ba tas na sëy ba tasati na waaye moom da yow ak ni mu amee xaalis ni yow amul sens su jëkkër fekk na moo takkoon ku góor ki bëgg koo def sareet ku góor ki bañ deretam ñuluk ko mu ne ko mënuma ko xanaa boobu sëy tasaat na kon la jigéen ñi góor ñi bàyyi leen naxante bi te ngeen di sëy ci dëgg ndax say jaamu yàlla la àdduna bii ñu nekk dafa jeex ba pare intérêt lalul dara gëm yàlla ak jaamu yàlla lal lépp te lañ ne wërsëgu jaam yàlla te loo war a am sa àdduna danga koy am boo duggee muñ mu fekk la fa boo duggul muñ it buñ ko xasee rëdd sa jee mu fekk la fi nañu mën a lante te xadd àdduna du xaalis a ko yor àdduna du tiire du force moo ko yor àdduna lépp waxante dëgg la conversation, conversation waxtaan di taaj di dajale di boole lépp di leen